auzubillahi min asheytaan irajim bismillahi irahmaaniirahim wa sallallahu taala ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman ginnaaw bi ñu sante yàlla julli gën sallallahu taala alayhi wa sallam ñu ngi wax jërëjëf sëriñ Touba sëriñ Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg lool te tey nag ñu ngi taxawaat fii ci niñ ko daan defee ci waxtu wi ci weeru koor yi rawatina fukki fan yi mujj yi sànq ñi ngi jóge ci quartier Daaru Minam 2 ànd ak chef de village bi ak population yi jox leen seen ndimbal bi nga xam ne fondation Soxna Baale Mountakha Mbacké moo leen ko jox ñu ngi ñëwaat nag fii ci aslem ci benn magasin boo xamante ni bii moom ceeb moo fi nekk ñu war koo joxe mi ngi nii sama ginnaaw wax naa leen sànq ci biir wax ji ne liñ daan joxe ren ëpp na lañ daan joxe lañ lañ joxoon li ñu joxe ren moo ko mais dañoo changé aw doxalin wax naa ko sànq ci bi ñu nekkoon li tax ñu changé ko dañu gis ne dajale mbooloo mi dañuy bari lool day indi ay rëq-rëq lu mat cinquante village nga dajale leen mbooloo mi dangay am jafe-jafe pour séddale ko ku nekk di wax wala léegi-léegi sax nañ koy joxee dafay xaw a am ndax ñu sant Njaay dañ ci nekk di jël lu leen joxut yu demee noonu des fois dafa yàq programme bi moo tax ren soxna si ci xalaatam bu rafet mu ne dafa bëgg kenn ku nekk fa nga nekk nga toog ci village bi ñu fekk la fa jox la ndimbalu fondation bi sànq def nañ ko fële ca Madi ci euh, Daara Minam 2 stock bi sama gannaaw dañ ko war a joxe incha allah noonu lañ ko defee bu ñu fi jógee dañ dem ci entrepôt bu mag ba ci hélico ba am na stock ceeb bu mag a mag bu fa nekk danañ ko joxe mu jëm ci daara yi nga xam ne moo war a jëm ci sëriñ xabaan danañ ko ko jox li jëm ci daara yi nekk Tuubaa yëpp ñu jox ko ko rawatina nag quartier périphérique yi nga xam dañ fay dem fekk leen fa dimbali leen ndax ñooñu dañ ko soxla ndax fondation bi li ko li taxoon soxna si créé ko muy am wàllu social daf koy yokk may du ko wàññi mukk ci àdduna ren jii am nañ conteneur boo xam ne dafa def ay matériaux médicament yoo xamante ni bii mi ngi fi tege incha allah bu ñu fi jógee bu guddiwul danañ dem ci conteneur ba ñu ubbi ñu ubbi yi xool ko def na ay ay ordinateur ay sario def na ay chaise def na ay ciseaux def na ay échographique lu nekk mi ngi ci biir foofu noonu danañ ko joxe seet ñi ñu ko war a jox ki ndigalu Serigne Fallou nee na danañ seet fii six postes de santé ak hôpitaux yi fi nekk ñu séddal leen ko. kon loolu ci dañ koy saraa noonu rek li ci des nag sëñ Modou Mamoun dana ko mottali waaye ñi daal ñi ñu doon dimbali daal nañ xam ne fondation Soxna Baali Muntaxa Mbàkke ren li mu doon def yokk na ko nit ñi nañu toog fa ñu toog xaar ndimbalu fondation dana ñëw fekk leen fa ak équipe am ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp li ki def sëñ Modou Mamoun Lo dana ko mottali ci kaddu kàddu wasalaam bismillahi rahmaani rahim xabli safinatan li kulli janna min daarati min nan yaasal min na ginnaaw bi nu sante yàlla sunu borom noo ngi julli sangi sangi sayduna muhammad di sant Serigne Touba Khadim Rasoul tey ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla na fi yàgg te wér liggéey bi mu liggéeyal Serigne Touba yàlla na ko defaat téeméeri at yu tàmbali tey te ànd ko ak sagoom ak wér di ñaanal bu baax nag jëwriñam ji di soxna Bali Mountakha présidente fondation bi jàmbaari lislaam ji turandoo maam jaara ji waaye ki nga xam ni la maamam nekkoon ci la ne ndax ni ko alaaji Cheikh Diop waxee rek liggéey bii ku ko sos ñu ne soxna Bali nan la ko sosee ñu ne da dimbali nit ñi dem ba jëm boppam doyutu ko mu def mu def euh, euh, euh, fondation waaye fondation bi mu ko defee it téewul la cay dem lépp alali boppam lay doon ci ay coonom du ko ay coono ak i mettit waaye moom du ko yëg boo waxee rek mu ne liggéeyal sëñ tubaa ndax sëñ fàllu sama baay nee woon na jaamu yàlla ci jaami yàlla yi lii seex wax loolu loolu la soxna si wax nee na jël si bi mbooloo mi dana bari waaye nee na yërëmaat na tamit ñi koy jël si ci koo xam ni da ngaa war a jóge Samla wala Madiyaana siis wala nga jóge Daaru Saw war a jël taxi ñëw ba ci kër sëñ Tuubaa gi daaru man naan ñu jox la ceeb ak suukar ak la cay ànd nga jëlaat taxi dellu soxna si ne kooku la muy paasee taxi xaj na ci moom kon ni ñuy def mooy ñu taal oto yi jëlee ko ci magasin yi ndax bii ngeen gis fii ci fii ci asilem noonu la magasin amee amee amee héliport magasin nga daaru minam magasin nga daaru tansil Cees ak kokkeek Tiwaawan ak yooyu la fay dem yooyu maa nga kokki tege ak yeneen ak yeneen ni ko seex waxee fi handicapé malade malade euh, manto yi ba ci biir euh, hôpital yi buñ fa duggee euh, fact facteur bu ne ci biir hôpital bi ndax danañ dem ci CRES bi dugg ci amical yi fenn fu ci ne lenn lu ci ne rek fondation bi dana fa def taxawaay def fa ay man-manam boobaak tey nag mu ànd kook Alaaji Cheikh Diop mii mu ciy jàmbaar loolu chef village Rocky ak Serigne Fallou Mbacke mu Serigne Moussa Bassirou ak mboolem mbokki taalibé yi Serigne Jili Mbacke paf dañuy sëñ Youssou sëñ Alaaji Lo ak mboolem ni ñu àndal nekk ci liggéey bi ci fondation bi la ma waxoon rek li ne orphelin et pauvre trouve en un refuge xénophobie bannie de son dictionnaire noblesse inné dans l'acte et le langage à la grande comme la mère Bali Mountakha la pieuse moom day jàmbaar joo xam ni xëyam gontam yëngoom ak dalam mooy dimmi nit ñi rek ak di leen taxaw kon nag yàlla na ko fi yàlla yàggal yàlla sàmm ko lu mu man ren bu déwee ne yàlla na man lu ko ëpp ñun ñi nekk moom de bu dee dëgg rek saa boo xëyee yow da ngay gën a yéemu nee naa ko yow Mbàkke ñi ngay àndal ñi ñi ñi la gën a jege saa bu nu xëyee di la gën a bëgg ndax yow kenn du la miis ndax lu baax ni nga koy defee ak yërmande gi nga am ci jaam ñi loolu moo jafe waaye nag ku ñu tuddee soxna jaara ñu ne ko ku la ko tuddee ñu ne sëriñ Abdou Khadir sëriñ soñ bi di sa bàyyi Cheikh Mamadou Mountakha lakk la nii rek nga war a mel kon soxna Bally yàlla na fi yàgg te wér